mu yëggale ko ak jàmm ba yeneen laal di sant euh, sëriñ Isaaxa Mbacke euh, bi nga xam ne mooy suñu jëwriñ ci liggéeyu daare Maam Jaara di administrateur fondation Soxna Jaara di dox ci ndigalam nag gannaaw moom ba mu amee ndigal ci liggéeyu parrainage bi li waral parrainage bi mooy euh, Euh, daaray Maam jaara biñ ñu ko fonde en cinq suñu Moustapha Bassirou dafa fond dafa jëloon carte soxna jaar yi nga xam ne moom lañ doon euh, wecceeku di ko wecceeku au niveau euh, national Sénégal 2000 francs fii ñu koy wecceekoo 15 euros ñu jàppoon ni carte ñu jàpp ba tey ni carte soxna jaare yi mooy dundal daara ji léegi nag bi sëñ bi wootee ah, mbooloo mi ko wuy si euh, macha allah ñu dem ba nga xam ni nag daara ja euh, daanaka ci njëlbeen gi rek toll nañ ci 450 soxna jaar léegi so euh, bi ñu demee ba nga xam ne ni nit ñi inscrire di inscrire seen soxna jaara yi seen doom en masse ñu jàpp ni sëñ Isaaxa ci xelam mu mu rafet jàpp ni xëy na war nañu am beneen mode de fonctionnement de financement. Euh, pour daara ji ci li ñu indi idi euh, parrainage léegi parrainé nag lan mooy parrainage ndax euh, comme ñu ko toujours ni ko bi di waxee da ngay gis fii lu lu yàgg la maanaam ñu di koy wax ndey daara wala bàyyi daara da nga gis fii ci au niveau de de l'Europe gis koo xam ne day parrainé benn xale boo xam ne ma nga ca Sénégal ni man kat kii man maa koy jël yore yoreel ko dundam yoreel ko léppam. ah ñun nag pourquoi ñuy demande sëñ bi demande <laughs> ñuy ñaan nit ñi di parrainer seen soxna jaara maanaam dañoo euh, sëñ bi daa bëgg dañoo bëgg liggéeyloo bëgg liggéeyloo ñu euh, ñi ci alxuraan ndax xale yi ñu dajale ca daara ja ñuy jàng euh, ñu toll tey ci limu 500 xale yooyu kenn ku ci nekk sa dund weer dafa jàpp ay 13 à 15 millions par mois loolu lañ ko estimer. te loo xam ni euh, électricité bokk ci ak charge yi nga xam ni mooy yeneen charge externe yoo xam ni euh, yu jëm ci kii si daal xëy na yéen danañ ko mën a expliquer plus tard yooyu yëpp bokk ci léegi nag bu ñu bu ñu bëggee parrainer euh, en fait bu ñu bëggee ñi nga xam ne ñoo nekk ci liste d'attente bi mën a dugg si ku inscrire sa maam jaara ñu jël la ah ci lenn kat lu ñuy wóor ñi ci parrainage nga jël sa benn soxna jaara estimé ni 30 euros moo koy dundal en weer euh, par weer di 15000 francs CFA euh, ñu jàpp ni yow bu ñu loolu bu ñu ko bu ñu ko defee xëy na ñii nga xam ni ñoo war a nekk ci liste d'attente bi yépp dañu war a mën a dugg kon nga xam ne ko fëgg buntu euh, soxna jaara ca Poroxaan ngir dugal sa doom incha allah ñu mën laa jël ndax sans nag euh, bi nga xamee ni tamit euh, ñoo ngi commencé développer idée euh, parrainage bi wax dëgg yàlla di sant yàlla bu baax muy dox muy dox bu bu bu wér a wér a léegi ah, ñun moyens yi nga xam ni moom lañ moom la ñu utiliser pour gën a mën a communiquer liggéeyu parenage bi fii d'abord de bouche à oreille. aussi dañ ci dañ dañ dañ ci woo ñi nga xam ne ñoo ngi ci daayira maam jaare yi ndax bi ñuy toujours bi ñuy def bi sëñ Moustapha Bassirou di samp daara ja euh, boobu dañoo jàppoon ni boobu yawee euh, nee nañu woon euh, ñaari junni daayira maam jaara ci àddina bi boobu sëñ bi sax ni sëñ Moustapha Bassirou yàlla na yàlla yokk ay leeram te taas na ci barkeem ni woon bu fekkonte ni tey benn daayira bu ci nekk pare na nga benn soxna jaara kon xëy na duñ li ñu li ñu namm ci daara ji yëpp danañ ko am léegi nag comme daayira yi xëy na dese nañu am seen euh, fonctionnement ni nga xamee ni xëy na wala tamit xëy na idée parrainage bi ñoom ñëpp àggul ci ñoom looloo tax ñun tey jii ñu di ci taxaw par yee daayira yi daayira yu bari Euh, dëkk yu bëri def nañ seen fédération daayira Maam Jaara ñun fii en France ñoo ngi nekk ci phase def suñu fédération de daayira Maam Jaara léegi buñ ko defee nag bu ñu tolloo foofu danañ gën a mën a xamle liggéeyu euh, parrainage bi danañ ci gën a mën a taxaw danañ ko gën a mën a yaatal ci lay gën a mën a structuré mais fi nekk nii euh, pour sant niveau kenn bëri na euh, au niveau de la France bëri na ñoo xam ne ñoo ngi parrainé donc ñun fii localement euh, mën naa ni Paris euh, région parisienne ak xëy na mën naa ni sax xëy na par par toute la France ñoo ngi communiquer bu wér a wér a wér a d'une manière transparente liggéey bi par l'intermédiaire d'un site site bi ñu ngi tudd 3W maam jaara point donc www.mamdiara.fr léegi site boobu boo ci cliquer rek euh, da lay orienté ci site bi nga xam ne ni moom mooy euh, li ci bi nga xam ne ci la ñuy collecté pour l'instant ci la ñuy collecté d'une manière transparente muy site bu nga xam ni c'est euh, c'est sécurisé waaw am nañu site de collecte boobu am nañu ay des des gens de confiance yu nga xam ne ñoom tamit comme amuñu parce que site bi par carte bleue la am nañu ay nit ñu nga xam ne nit de confiance yoo xam ne dañuy jox ay espèces dañuy wax euh, dañu am ay points de collecte yoo xam ni ci la ñuy ñoom fa la ñuy dem. lu mel ni boutique gu Lamp Fall euh, restaurant euh, Mame Diarra bi nekk rue rue Léon 18e boutique gu Lamp Fall aussi ñu nekk rue du Devil Paris. ak lu mel ni euh, am naa sama benn euh, tamit euh, suñu benn marraine bu nga xam ne wax dëgg yàlla di yëngu ci salon de coiffure bu nga xamee ni moom tamit macha allah ñoo ngi point de collecte yoo xam ne pot yi lañ fay teg léegi bu ñu fa tegee pot yi ñun dañuy def tous les mois wala tous les deux mois ñu woo ñu ñu ñu récupérer ko am nañu aussi benn point de collecte yi ñu ngi développé wu petit à petit léegi euh, am nañu affiche yu ñu def yoo xam ne tamit dafay ànd ak euh, euh, pot de collecte yi nga xam ne dañ koy apposé à côté nga xam ne nit ñi dañ mën a comprendre mieux comprendre lu lu waral parrainage bi nga xam ne def nañ ci information parrainage yëpp waaw. am nañu aussi donc def nañu tamit pour mieux communiquer dañuy joxe ay flyers quand il y des événements. Euh, am nañu équipe bu solide bu nga xam ne euh, équipe de bénévole ñoo xam ni ñoom ñoom ñooy dañuy wër euh, donc distribuer flyers yi mais on a eu le, le, donc l'idée de de fermer maintenant de cartes de visite yoo xam mooy gën a neex a garder ci ci porte-monnaie dañ ko defaale à titre symbolique carte barkelo waaye tamit bon soit nit ki jox na un euro wala ñu jox ko ko rek mu mën koo garder pour mën a am contact yi su bëggee. parrainer waaw. waaw aussi waaw am na leneen waa lu ma ci bëggoon yokk tamit suñu équipe de jeunes équipe bénévole bi ñu am en cas de d'événement euh, il faut préciser que ñoom ñëpp ndeysaan ay par ay marin marraine lañu ak ay parrain euh, ñoom am nañu benn fichier bu ñuy établir nga xam ne ku bëgg parrain nañu jox la nga inscrire def sa tur sa téléphone sa contact yëpp daal nga xam ni. ñu pour ñu mën a am suivi sunu base de données euh, loolu yàlla am nañ ci ndimbal yu bëri ndax am nañ ci ay ay ay parrain yu yu nga xam ne ñoo ngi ñoo ngi ñoo ngi joxe régulièrement ñeneen ñi ñoo ngi joxe euh, ponctuellement waaye li ñuy ñaan rek kenn ku ci nekk ku inscrire rek ak ñi jot a inscrire rek mu nekk aussi euh, des actions de manière pérenne waaw. jàllee. Mhm. wala li ngeen ci seen collectif bi ngeen ko waajalee. Mhm. lan mooy périodicité bi parce que ndax. Mhm. parrainage bi par mensuel la wala annuel la wala yéen nan ngeen ko tënkee ak dajale bi ngeen dajale fond bi. ci ban période ngeen koy ngeen koy ngeen daal. waaw euh, léegi ñun euh, parrainage bi euh, léegi kuñ ci woo ku ci ku inscrire dañ lay ñaan nga parrainer au moins nga jël engagement. Euh, de minimum un an un an ndax dañu jàpp ni euh, cycle cycle scolaire scolarité mën naa ni scolarité euh, jaar bi huit ans la ah, huit ans la mais nag dès le départ on ne pas demander aux gens de parrainer ay pendant huit ans dañ lay ñaan nga nga jël engagement minimum un an léegi pour l'instant comme ni ma koy waxee dañuy collecter en espèce donc dañ koy dañ koy ñoo ngi koy ñoo ngi koy garder di ko def ci ay pots de collecte yi pour sécuriser ko leneen li nga xam ne moo nekk ci site bi dañu fas yéene euh, fi mu nekk ni di ko def ci compte bancaire bu nga xamee ni euh, buñ ko ci versé compte boobu moo koy reversé waat euh, au niveau au niveau de moo koy reversé waat compte fondation bi parce que euh, comme fii euh, xam nañ ni pour l'instant fi ñu toll nii tembe euh, site de collecte bi ñuy collecté ñoom di ñu reverser amuñu droit la loi ne leur permet pas ñu ñu reverser li li ñu collecté si ñoom direct sur un voilà sur un compte étranger parce que problème blanchiment d'argent yi tax moo tax dañ koy obligé verser ko ci un compte européen compte boobu nag doo koy reverser Euh, euh, ci compte fondation bisis euh, bu fondation Mame Diarra ba nekk Sénégal. Hmm. waaw non fi mu nekk nii loolu am nañ ci xëy na ndigalu sëñ bi comme tamit dund la dund du dund du du xaar bëgguñu ko dajale ay lu toll Euh, un an euh, comme par exemple man nii maa ngi collecte depuis le mois d' octobre bon sachant que octobre bi ñuy commencé on était deux personnes weer bu jot nit ñu yokk weer bu jot nit ñuy yokk pour l' instant xëy na collecté nañu lu nga xamee ni euh, mi ngi mi ngi bëgg jege si tolloog 6 000 euros mais dañu bëgg tous les six mois ñu reversé ko ñu reversé ko fondation bi fi mu nekk nii comme dañ doon xaar symposium bi jàll symposium bi ñu defoon le 29 avril. bi mu weesoo léegi nañ waxtaan nañu ak sëñ bi bi ñu ñëwee incha allah dañoo fas yéene xool nuñ ko reversé ci mois de juin bi euh, dañuy xaar rek benn ouverture d'un compte compte boo xam ne compte association lay doon xëy na boobu moom comme liggéey bi liggéeyu du liggéey c'est pas un travail à liggéeyu mbooloo la donc dañoo dañoo dañoo fas yéene euh, def ko ci compte bu nga xam ne compte mbooloo la muy compte association boo xamee ni association bi moo koy compte association moo koy reversé waat fondation bi eh, waaw. mën euh, dañu ça nag euh, quelque mën naa ni ça fait plus d'un an ñu envisager ubbi association pour. Euh, liggéey bi ñuy liggéey mu jëm ci poroxaan on a commencé par def benn groupe bu groupe de groupe Viber euh, tudde ko tous solidaire pour Porokhane léegi nag ci après ñu def groupe WhatsApp mu gënoon yaatu tous solidaires pour Porokhane bi ñu commencé nag tàmbali liggéey bu baax ci liggéey association bi euh, ci euh, parrainage bi ñu tuddee rebaptiser groupe bi parrain parrainage Soxna Jaara léegi nag yàlla def na ni association bi ñu buggoon ça fait plus d'un an xëy na lu jot ak yomb Sëñ Tuubaa mi ngi ko euh, mi ngi ko mi ngi ñu ko faciliter euh, ba lépp leer lépp ñu jot ci kayit yëpp ci pendant le symposium ñetti fanu symposium boobu si la ñu Sëñ Tuubaa baaxeel taw feexu ñu préfecture autorisé ñu ñu def association bi ñu tudd tous solidaires pour l'institut Soxna Jaara de Porokhane léegi suñu tous solidaire boobu di woo ñëpp ñu mbooloo lañu mbooloo moo xam ne dañuy jàppoo am solidarité ngir liggéey mu jëm ci poroxaan moom lañ tudde association bi le titre court c'est tous solidaires poroxaan association bi euh, génn na euh, donc euh, am statut yeeg récépissé bi yeeg yëpp génn incha allah bu nu yàlla dimbali nag ñu daal compte bancaire bi taxaw li ñu li ñu li ñu collecté lépp ca association ba lay jëm waaw ngir association bi nag. am nañ ci ndigal dañ ci dañ ci bañ ci dox dañ ci dox nañ ci ci ngir ndigal am nañ ci ndigalu sëñ bi association bi daf fi nekkal ngir liggéeyal fondation bi loolu moo ko tax a jóg waaw ndax dañ yàlla def na ni comme liggéey soxna jaara bi yaatu na man jàpp naa ni kenn ku ne war ngaa mën a def sa association bu dee liggéeyal soxna jaara moo la tax a jóg wala sax liggéeyal feneen waaye nag bu liggéey sëriñ tubaab bi ku ne mën ngaa def sa association ñu bokk di dajale kenn ku ne dajale sa wàll ñu bokk di dajale ngir yóbbu yóbbul sëñ Tuubaa waaw looloo gën a tax nag ñu gën a taxawee ci côté boobu. léegi ci wàllu xam nga mais est-ce que ndax sànq déglu naa la yaa wax ci. Mm-hmm. Mm-hmm. fédération boobu. booy xool France dëkk bu ne am na am na daayira maam jaara mhm. léegi nan ngeen di booloo yéen ba xam ne seen parrainage bi ngeen yaatal. Mhm. loolu. Mhm. Euh, tamit euh, yàlla dafa dogal tamit pendant ci symposium bi euh, ñi nga xamee ni ñoo ngi doon mébét fédération bi dafay dafay dafay ça fait des des années ñu waroon ci mën a taxaw. waaw léegi nag ci lu toujours sëñ saxa sëñ saxa administrateur fondation Maam Jaara bari na ñun lu ñuy lu ñuy dox rek doxuñu ko ci ngir suñu euh, coobare bopp bëgg-bëggu euh, association ndax lu ñuy liggéey dañ koy liggéey ci ni ko euh, ni ko sëñ Tuubaa bëggee ndax sëñ Tuubaa da mu doon liggéeyal sallallahu alayhi wa sallam ko doon liggéeyal nag yonent bi bëggee waaye moom baa ni ko sëñ Tuubaa kon donc ñun dañuy liggéeyal sëñ dañuy liggéey ni sëñ Tuubaa bëgg donc ñun lépp li ñuy def rek dañ ci am ci kaw ndigal lañ lañ ci teg lañ ko teg euh, ñu demee def fédération nga xam ne mbooloo xam ne mbooloo mi ñu ànd mbooloo daayira maam jaare ci France yëpp ñuy ànd di liggéeyal euh, boole li ñuy jëf suñuy jëf yëpp euh, di ko boole di ci sottante xalaat yàlla def na tamit Euh, bi nga xamee ni ñoo ci doon dox ba wax dëgg yàlla euh, di ci saluer bu baax liggéeyu soxna Mani Thiam moom moo nekk Lyon euh, yàlla taxaw na ci jàmbaar la taxaw na ci taxaw taxawaay bu am solo ci fédération pour fédération bi taxaw waaw yàlla defee ci symposium bi nag ci lañu occasion ñi nga xam ni jëwriñ ya nekk nekk ci gox yu yëpp en fait France yu côté France yu bëri ñun ñëpp ñoo ñëw euh, ñoom teew nañ ci symposium bi ci ci seen symposium bi dix euh, daayira euh, signé nañu seen accord pour bokk ci fédération bi léegi nag yeneen fait yeneen daayira yi ñoo ngi waaj di ñëw ñu donc fi mu toll nii tamit ñoo ngi nekk ci phase phase taxawal bureau bi léegi nag loolu day gën a faciliter ci suñu liggéey Euh, non seulement yeneen chart yu ñu tëral ci lu jëm ci fédération bi ci ngir ànd euh, liggéey ak ci àddi yëpp euh, lu jëm ci parrainage bi dafay gën a gën a yombal suñ liggéey ndax daayira bu ci nekk boo bu fekkente ni jàpp nga li nga war a nga xam ne war nga ko mën a jël sa lim bi nga war a jël ci soxna jaara hmm? xëy na bu boobaa sax mën naa ni concurrence sax mën na am waaye nag concurrence fii ci côté bi c'est de manière euh, positive ndax euh, liggéey Sëñ waa moom loo ci wujjee moom mu nekk lu baax moom pour tamit xëy na nañu jàpp ne wàññiwul dara kenn ku ci nekk boo joxe sa lim nombre de temps de Soxna Jaara lay pare ne ñun ñëpp loolu buñ ko boolee boole kaak individuel yi nga xamee ni tey jii ñun suñu côté ñun nii fi mu toll nii tamit on a individuel yi ñoo bëri individuel yi presque lu ñu collectif ci individuel lay jóge hmm? léegi xam nga loolu lépp mu leen boole ma euh, kon jàpp naa ni euh, États-Unis ñoom fa ñu toll tolloog ay lu tolloog ay deux cent vingt jàpp deux cent trente soxna jaar xëy na ñun man doon leen dañ leen romb bu France yëpp ñëwee euh, daayira France yëpp ñëwee daayira ak yëpp ñëw ñun xam naa waaw incha allah fas yéene nañu romb xëy na trois cent parrainage jëm jëm jokkoo

ñu ñu ñu ñu en fait ñu ñu def suñu suñu bilan annuel euh, waaye nag li ñuy ñaan nag li ñu jot a parrainé li par li ñu jot a dajale ci parrainage euh, au bout de euh, de huit mois hmm, sept à huit mois ñaan yàlla am lu ëpp loolu ndaxte bu fekkente ni tamit yeneen fédéral yeneen daayira yi ñoo ngi ciy taxaw même bu bu structuré wul euh, ñoo ngi structuré sax fédération bi même bu fekkente ni bureau beeg yëpp xëy na même bu taxawagul yeneen jàpp ne bu ñu boolee yeneen daayira yi li nga xame ni ñëpp affaire comme parrainage bi dugg na ci nopp ñëpp hmm? bu ñu boolee loolu lépp mën naa ni euh, jàpp nañ ni xëy na danañ mën a war a mën euh, multiplier par deux ou par trois lii nga xam ni jot nañ ko collecté waaw. Hmm. xanaa kàddu gu mujj gi rek moom mooy euh, dama ci dama koy wax toujours rek ndax ñun euh, liggéey soxna jaara bi dañ ci am dañ ci am benn dañ ci am modèle waaw dañ ci am modèle ndax euh, fii wax dëgg yàlla sëñ tubaab boole lañu nag mel ne soxna Bali waaw soxna Bali di di di di suñu jëwriñ fii ci au niveau de la France mu yàgg noo Euh, jiite tamit ñu yàgg ko roy ci maanaam ni muy doxe ci liggéeyu euh, soxna jaari ku ko fekk tey poroxaan rek doo bëgg dul di def ne moom di takk laxasaay di ànd ak moom ci ci ci ci ci liggéey bi wax yàlla dañuy roy ci moom ci lu bëri bëri di ko sant di ko ndax euh, ndax sëñ Muntaxa gërëm na ko te sëñ Muntaxa moom tey jii moom mooy suñu sëriñ tubaa ku sëriñ tubaa gërëm kon war ngaa war nañoo mën a xam ni <coughs> royukaay nga Euh, leneen li ma ci yokkit mooy ku mel ne Aïda Ndiaye soxna ay Aïda Ndiaye Badelo ndax moom euh, daa bàyyoon léppam dem léppam lépp lépp lépp lépp lépp jël soxna jaar teg ci kanam yàlla yàlla yokk ay leeram tax ñu si barkeem dafa nekkoon moom tam modèle ci liggéey bi moom bëggul woon dara bëggul woon mbuum mu rafet bëggul woon takkaay bu rafet bëggul woon bëggul woon leneen liggéeyal soxna Dia lu mu am yóbbu Touba mu am yóbbul euh, Porokhane ba yàlla def na ni li euh, ñu ba daara ja baaxee nee nañ keroog ba mu wàccee liggéey te ci biir xabru soxna jaara lañ ko fa wàccee ci ay kaamel yoo xam ne soxna jaar yi seen bopp ñoo toog wàccee ko loolu lu yéeme la waaw suñu taxalam ca wax yëpp. ñu bari gis nañ ko ndax xëy na jaaroon na par tous les par tous les réseaux sant na ko gërëm ko euh, wax lu wax wax wax lu rëy ci moom ah, ñu nit dañuy ñaan yàlla rek ñu ñëpp nekk ay soxna Aida Ndiaye Badillo ci liggéey soxna jaara bi di ñaan rek euh, ñuy àddina bi di dégg wala ñu ñuy gis gis ci liggéey soxna jaara bi sant te bi wér rek di ñaanal suñu taxaw mu gën fee yàgg lool te wér Mbàkke njabootu Sëriñ Tuubaa bi yëpp njaboot maam Cheikh Ibrahima Fall mi nga xam ne moom moon wan yoon ah, ñu fas yéene ah, nekk ay Baay Fallu Soxna Jaara rek ay Yaay Fallu Soxna Jaara ba ba ñuy dem àjjana hmm. yàlla moo nu ko tànn